não, não, não. Toujours dans votre scandale du jour de ce lundi 4 décembre 2023 sur la chaîne des grands événements VIP People TV suñu jógee foofu dama bëgg ñu saan benn vidéo ginnaaw bi nga xamante ne ñu bëri taxawoon nañ fii de dànkaafu Macky Sall naan amul vision mënul defar Sénégal vision am Qui dit layam kii di Macky Sall yaakaar naa ne ni ko Olof Diaye di tontu de forox indil na leen tontu tontu bi nag dafa ànd ay preuve à l'appui comme ni ñu koy waxee ñaa xarañ loolu dafa bëgg preuve Tange Tandian dafa bëgg preuve kii di président Macky Sall tontu na leen ñii nga xamante ni ñoom ñoo féetee wàllu wax moom mu féetee wàllu jëf ba par jëf yi ne fàng ñëpp teg ci seen bët donc je crois que dama ñu déglu ñu tontu bi nga xamante ni Macky Sall na ko. ñi seen gis-gis gàtt seen xam-xam gàtt nee nañu sama action jam nga la yem xëy na demuñu Casamance wala bu dem dañu gëmm seen bët yi bu ñu jël autoroute dañu gëmm seen bët yi. kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo tontu président de la république Macky Sall ci opposition bi ak ay détracteurs am ñu naan xam-xamam dafa gàtt vision weesuwul jam ñaajo nee na xëy na ñu demuñu Casamance wala demuñu Marsassoum wala jaaruñu ci autoroute à péage bi wala suñuy dem foofu dañuy gëmm seen bët ba egg moo tax gisuñu li nga xamante ni réalisé na ko ni ko Olof Ndiaye waxee rek du lu naay fàng kenn du ko jeex képp koo xamante ni tey opposition nga yaa ngi dénkaafu kii di Macky Sall jour nga bénéficié wu ci ay réalisation bi nga xamante ni Macky def na ko am nga xolu kiñaan pour taxaw défendre ko ci plateau yi donte àndoog moom ci gis-gis donte fi ma toog nga bëgg a toog mais Olof Ndiaye dafa ne gis nga nit ki loo yéenewul sa moroom doo ko yéene sa bopp kon donc comme yéenewu leen Macky Sall li mu defal Sénégalais yi defalu ko boppam defalu ko njabootam defalu ko soxnaam defu ko ci biir këram defu ko moomeelu boppam mais titre foncier Sénégal la ko def Sénégal bi ñu bokk donc je crois que waroon am ngor ak jom ba nga xamante ni autoroute à péage bii ngeen di jaar alors que ngeen doon jaar ci national bi fa def ay quatre heures de temps cinq heures de temps jamono ji pour nga def test bu soo neexee mën nga ko def en trente cinq minutes donc je crois que ba ngeen di jaar ci autoroute à péage bi je crois que da ngeen bi ngeen di romb di gis BRT bi ñii di jógee Diamniadio di ñëw Dakar di jël TER bi dañoo gëm ñii di dem stade Abdoulaye Wade yaakaar naa ni dañoo gëm ñi dugg ci village yi gis électrification rurale dañoo gëm kon yaakaar naa ni président Macky Sall tontu na bu baax a baax ñii di ay détracteur am ci ay réalisation xamal leen que moom temps de l'action la nekk jëf lay def mais nekkeew fi uniquement pour yor làmmiñam di mbele mbele ci loo xamante ni maîtriser ko te xamu ko alors que ñoom li mu fa teg tey ëllëg ak ci biir ku leen fi tegoon ci ñaar fukki at kenn ci ñoom mënul ci réaliser genn wala lu li nga jël di fii waay lu ci ñaar nga